waaw jërëjëf d'abord euh, maa ngi leen di nuyu di jiital sama nuyoo monsieur le gouverneur de la région de Thiès di beral nuyoo monsieur le président du CRG de Thiès monsieur Abibou Diallo euh, di nuyu mbokk Thiès yëpp particulièrement ak lu làmb en réalité ñun dañoo am mission nationale boo xam ne dañu jox pour ko làmb ji ñu fexe duñ ko doxalee ñun nag commune nationale la ñu décliné benn plan d'action pour dem def une tournée nationale dem ci région yi waxtaan ak ñoom en passant par les gouverneurs dem ci CRG yi waxtaan ak ña fa nekk CRG yi nag bu buñ ko tuddee tudd nañ comité régional bi ak ay démembrements mu nekk commité départementaux yi ak comité locaux yi de lutte ndaxte xam nga euh, làmb dafa yaatu muy sport national boo xam ne Sénégal yëpp koy suivre tey tamit ñëpp ko bëgg mën naa ne euh, xam nga am na ay règlement yu fi nekk am na xëñ na ay jafe-jafe ci yi nga xam ne compréhension yu réglement yi la am na règlement yu bees yoo xam ne génn nañ koy tamit am na ñoo xam na seen déggin wala nañ ko jàppee demeewut noonu wala noonu la demee sax ñu ñëwoon pour d'abord leeral loolu mais également et surtout fexe ba ñi fi nekk wax ñu seen jafe-jafe seeni problème ci wàllu gestion làmb alors xam nga ci biir loolu dañu ne d'abord premier problème yi war nañ di jublu ci kilifa yi fi nekk mooy sous-préfet yi mooy préfet yi mooy gouverneur bi fi nekk ndaxte ñooñu ñoom ñoo fal ñi ŋànk wala ñi téye làmb ji tey fii ci région de Thiès kon ku ci am premier jafe-jafe d'ordre administratif war nga mun na ñëw waxtaan ak sa sous-préfet wala sa préfet wala monsieur le gouverneur ne ko jafe-jafe bii laa am ñoom ñu trouvé ay saafara ndaxte ñoom ñoo fi nekkal état te solution yu bëri ñoom ñoo ko yore donc moo tax ma jiital su mu nuyoo ci ñooñee leen di gërëm di leen sant ci li ñu jàppale làmb yi bu loolu règlement yi ki nga xam ne moo ko téye moo ko ŋànk mu nekk la protecteur des réglement dans la région de des règlements naturellement mooy monsieur bu Diallo mooy président CRG moom si boppa lépp loo xam ne réglement la war na ko mun na interpréter leeral ko nit ñi wax leen koy pare appliquer ko demande à ce que ñu appliquer ko am am temps daf koy appliquer et puis faire appliquer les règlements dans la région ci wàll autorisation yi wax nañ ko ci waxtaan bi waxtaan bu riche nag ndaxte ñi fi woon vraiment ay kilifa lañ ci làmb ji mu nekk ay nit ñu baax ay citoyen yoo xam ne boo leen gisee nga xam ne nit ñu am valeur lañu teew nañ fi weccoon nañu waxtaan nañu posé nañ ay problème ñoom seen trouvé nañ seen solution bopp posé nañu ay problème yoo xam ne desoon na en suspens CNG joxe nañ ci ay solution am na yoo xam ne aussi il faut que ñu différé ko CRG bi trouvé solution bi def ko fi wala yenn yi nga xam ne CNG moo ko war a réglé mu réglé ko ndax loolu yëpp mooy une démarche dynamique maanaam ñi nga xam ne yàlla di administré nga jegele di waxtaan ak ñoom di saafonte ak ñoom di leen di déglu di aussi leen di wax li nga xam ne moom mooy avancé li ñu séq loolu mooy li nga xam ne réunion bi sànq def nañu ko fi du ñu pare te gërëmuñu le promoteur de la capitale du rail Sidi Diakhaté ndaxte moom vraiment làmb ji fii ci lu bëri ci bëri dóor bi moom moo koy organiser te saa bu ko defee na ko médiatiser monde entier xam ne Thiès dëkku làmb au delà dëkku làmb Thiès dëkk sport la boo seetloo infrastructure yi ñu am école yu ñu am ci wàll sport kenn amu ko benn région amu ko ci Sénégal Thiès également am na cosaanu làmb bu rëy rëy ay champion yu bëri bokk nañu fi wax waxaat nañ ko fii sànq vraiment ci euh, jetaay bi moo tax ba ñun CNG dañ ne foog ñu wër 14 régions Sénégal parce que moom la ñu dégg également loolu mooy niveau national su ñuy waxtaan ak ña fa nekk acteurs yi muy acteur direct muy acteur indirect ñu waxtaan ci làmb ji lan moo tax doxul lan moo tax fii xaw a dox lan moo tax fi gën a dox ñu seet suñu mënee def a échange expérience pour que fi doxul loon toppatoo fa dox ñun moo ñu gën bu fekkee sax am na solution boo xam ne mun nañ ko jox localité boobu pour foofu dox ñu def ko on a une mission républicaine boo xam ne war nañoo taxaw ba saytu làmb fan la toll ci région bu nekk alors région bu nekk nag war na am CRG département bu nekk aussi am na war na am CDG arrondissement bu nekk war aussi comité local am na ay dëkk yu mag yoo xam ne sax dañoo dépendre ci préfet yooyu war am sax comité local wala préfet set naka la ñuy mën a def ba foofu département ba mu bokk mu nànk ko loolu mooy li nga xam ne vraiment ñëwoon nañ fii euh, waxtaan ak ak lu làmb problème boo xam ne am nañ ko ñu wax ko ñu saafara ko mbër yi seen problème aussi am nañu fi posé nañ ko te solution manager yi bàyyiwu kenn waccu bàyyiwu leen promoteur aussi kenn waccu leen donc maanaam ak làmb mu fi daje woon waxtaan ci famille waxtaan ci mbokk ak dëkkandoo waxtaan ci wàll sport ak li nga xam ne mooy ma associatif donc loolu mooy li nga xam ne moo na ko solo ndaje bi euh, depuis 11h ba léegi ñu ngi fi ba Tisbaar passé na loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk. maanaam moom alalam da nga koy dugal làmb ji am na ñoo xam ne sax bi stade Iba Mar Diop tëjee dañ leen waxoon ne problème yi am foo tëggee day am Dakar muy problème bi tam parce que ñëpp ñoo tëggandoo arène nationale ñu ne mais ñu nañu suñu pexe ba aménager ay date. pour ñëpp tëgg arène nationale bu fekkee ne motewut ñu invité yenn promoteur yi ñu dem ci région yi ndaxte làmb yamul Dakar bu ñëwee bu fekkee am nañu d'accord ñu leen dem leen région bu leen neex ñu accompagner leen dem yombalal leen ko waaye mënuñu nag forcer promoteur ne demal région sàngam nga tëgg fa par force parce que alalam la am xëy na foofu du fa mën am parrain wala dafa mun am parrain wala bu demee du am sponsor wala sponsor mais moom mooy seet fa nga xam ne mën na fa amee ndam mu dem fa ndaxte am na ñoo xam ne alal bëri la ñuy joxe ci seen i grand combat yi wala ba seen journée yi loolu mooy li nga xam daal moom lañ ci mën a wax ci fànn woowu dañ leen accompagner ci administrativement et techniquement au président CRG na ko yaa ngi am si gan diw dina ñëw tëgg foofu làmb mais fexe leen ñu ngeen ko jàppale te mu réussir ngeen accompagner en respectant naturellement les règles loolu mooy li bëri na ay coowoo yooyu xam nga amul benn benn réglement wala texte boo xam ne ñëpp dañ ci d'accord alors unanimité amul fen waaye nag la lutte aboo beau être flexible c'est mais elle va avancer avec ses maanaam règlement vraiment il faut nit ñi respecté ko ñu dem ci vraiment ba la mën a jëm kanam waaw loolu xam nga euh, euh, àddina moom lépp matawul fen mais nag quand même loolu bokk na ci projet bi nga xam ne état du Sénégal euh, mu koy dox maanaam fexe ba nit ku nekk foo bëgg tàggate sa yaram nga am foo ko tàggate bu fekkee ne ci làmb la am arène national arène régional loolu ministre bi fi jógee mosoon na wax ne effectivement ñu ngi liggéey ci projet bu donc ma gëm ne xëñ na dinañ ko def xëy na par étape ndànk-ndànk ba région bu nekk am stade régional waaye nag mun naa ne priorité wal du priorité mais stades yi nekk stade régionaux yi yi ci ëpp wala yëpp sax ay stade omnisport la waxuñ ne stade dañ ko tabax rek ne pour ñu defee defee boxe wala judo wala karaté wala làmb doom stade régional lañ wax bu dee arène la ñu wax ne arène bii pour làmb la arène de lutte mais bu ñu waxee ne stade régional la mooy que ne gis ne mun nañ fa xëj xëjoo ci su en suivant un calendrier bien défini par ak ña koy gérer pour ku nekk mun fa def sa développement def fa sa activité sportive bu nekk stade régional la bu ngeen demee ca comité de gestion ba wala ci directeur ba waxtaan ak moom dañ bëgg a tëgg làmb date sàngam bu libre mu jox leen ko parce que gisuma fu ñuy tere stade yi ne kenn du fi defee lii wala kenn du fi laa loolu gisuma ko ndaxte euh, man mi ci région laa jóge te loolu moo fa am bu fekkee ne am na euh, comment ça ku bëgg a tëgg làmb nga ñëw nga ngànk stade bi waxtaan ak ñoom ñu wax la condition yi parce que nag aussi mënuñu jox nañu ci stade noonu rek mu tëgg noonu te amul une conditionnalité da nga ne lii balaa ngay tëgg da ngay am garanti bi wala da ngay fexe ba lu fi yàq lii wala lii ay te loolu dañ koy def ci man stade yi nga naa leen bu dee football la bu dee athlétisme la bu dee judo bu dee karaté dañu bon lii mooy charte yi pour ñu organiser fi loolu gis naa ko mais loolu yëpp ay waxtaan la xam nga fitna baaxul fenn mais waxtaan ak ñi ko yor waxtaan ak euh, monsieur le gouverneur de la région ak stade régional la waxtaan ak conseil départemental yi waxtaan ak ña ko yor loolu yàqul dara parce que Sénégal benn bopp la te mënu ko xar ñaar te nag sport bi nga xam ne mooy làmb loolu eh, état moo définir ne sport dañ ko war a appliquer wañ ko pratiquer ci réew mi kon nag kenn du taxaw ne état lii la wax nga ne noo kenn du fi sport bi non non sur loo xam ne infraction état moo ko moom état moom stade yi nga xam ne ñoo fi nekk kon nag stade boo xam ne dañ ne lii moo tax mu jóg am sport la ñu wax maanaam sport yi ko bokk loolu amul problème bu ñu stade bi stade yi làmb la làmb fa am te làmb sax day xeexeel ñenn ñi ñoo bokk ñoom arène national bi donc loolu amul tey famille sportive dafa yaatu tey dañ ne sport par essence dafa nekk loo ne dafay boole nit ñi indi mbokk indi dëkkandoo ñu nekk benn bokk xel bokk xalaat donc gisuma sport bi ne noonu non non wala discipline bi ne non eh, kii du fi def lii non non loolu ay waxtaan laaj rek. ah ba question de management monsieur le président ah. bu ngeen soxlaa eh, stade yi fi nekk dem leen champ de course pour aussi foofu pour dawal pour pour comme course la course fas la bu ngeen demee nag ña ko gérer nga xam ne ñoom ñoom amuñu course fas ñu abaleen loolu c'est très bien bu ñu aussi dañu fay def seen course fas ñoom ñoom ñu am priorité parce que seen stade la bu nekkee nag les Maniang Soumaré la ngeen ñu ko gérer ngeen waxtaan ak ñoom yow bëgg a tëgg làmb tel jour. bu amuñ yaakaar naa ne bu ñu amul football wala amuñ leneen benn discipline bu fay def euh, activité daa leen def leen waaye nag condition yi ñoo fi nekk pour ngeen respecté ko même bu dee football sax dafa condition waxuma nag euh, làmb donc je crois que loolu yëpp te ñun waa làmb tous les sports du Sénégal dañoo war a veiller à que ñuy protéger di préserver les infrastructures sportives bëri nañ bëriwuñu mais bu ñu fekkee am ngeen ci ñett wala ñeent nañ fexe ba vraiment ñu di ko toppatoo pour que bu mu yàqu parce que yàq baaxul te stade nag lu mu deeree day jar ay milliards kon nag bu ñu ko amee nañ ko jàpp ñaari loxo di ko entretenir def aussi ay charte pour ñu di ko utiliser loolu muy yoon ndaxte lépp poteau san gis nga équipe équipe équipe yi dañu bëree fii entraîné wu am nañu sax dañu ay elo terrain yi da ngay ne boo àndee ci suba mu ànd ngoon wala boo defee 3 heures ba 5 heures man ma jël 5 heures donc amul lu mat ci àddina mais yëpp dañ koy waxtaanee rek vraiment vraiment di gërëm leen di sant di gërëm waa Thiès yëpp di gërëm encore di gërëm ak cant monsieur le président du CRG de euh, Thiès